Assalamualaikum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV ñu leen ni nuyu di leen ziar tey ñi ngi seet champion bo xamanteni mu naan bi mi dugg ci lamb ehlu lamb amon na ci mom yaakar ndax mu nekkon ci bu extraordinaire mais aussi bu ñewon daal ci daal di mën bis sa yu mosoon ñew di attirer attention yi ci filingam way itam ci mën bëreem ci xarañteem mu doon champion bo xamanteni amon na ben début bo xamanteni ni début boobu ñëpp amoon nañ ci mom yaakar mais mu dem ba ci diru kayram torof torof yu le longiligne de l'écrit Djimbory lañ seet si tey le géant des Saloum Saloum bébé Saloum ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a tàbbi ci waxtaan bi champion ñu ngi lay nuyu. waaw jàmbaar ñu ngi lay fay di wax bismillah ñëwal yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaraw la Cheikh Abdoul Karim mbakke naaru maam aw fay maa ngi ñaanal suma nday fa mu tëdd yàlla na ko fa yàlla xare ajjana moog yaayam fa fekk ak yaay ko fa fekk yëpp. di nuyu waa àdduna ak waa Sénégal di ñaanal ñi ci hôpitaux yi yàlla na leen sama ñu dellu ci seen yitte ñi ci campino yi yàlla na leen sama borom delloo ci seen sago ñi am njàqare yàlla na ko yàlla wàññi ñi laa nuyoo waa adduna alors sampion nga nekk euh, mbër également doon compétir instant yi mën nañu saison bi tëj na euh, entraînement yi nan lay demee. waaw euh, entraînement yi maanaam bu saison bi waaj a tëj tam leer na ni doo bëre. di nga noppalu benn xanaa di un mois yu mat sëkk yoo xam di nga tëdd relax xam nga toppatoo sa bopp pour bo waree reprendre nekk ci mais nii nii nii moom reprendre na ñu ngi ci waat quoi. ñaata séance ngay def par jour. actuellement deux séances wala benn rek léeg-léeg sax benn rek la ñuy def ah. bu dool weesoo tey ma laaj la ëllu lamb nan nga ko gisee ak li ko wër. waaw reenu lamb de daa yaatu bëri ay pakk reenu lamb daa yaatu bëri luñ ci war a wax muy ay dëgg ñu ragal ko. seenu làmb daa yaatu bëri lu ci nekk te mënee su koo wax ndax àdduna danoo baaxoo boo dee wax dëgg ñun la dëgg ci sa tànk boo dëggoo ñu dëgg te la moo tax daal daa bëri waaw. ma bëgg nga tojal ma yax bi rek xam nga nga foote am en terme de métaphore comme li ngay wax nii na leer rek. waaw mu leer mooy bi njëkk mooy ñun mbëri d'une part yàq nañ làmb ñun maak samay moroom yàq nañ làmb li ko yàqee mooy làmb bam mu amatul wujje la neexatul ci ci ci mbër yi ndax da nga gis mbër mu war a bëreeg moroomam dem di ko coxé maanaam di af ko di def coalition bu ngeen delloo arrière pensée fii ak cinq ci ginnaaw bi ay coalition amul woon làmb dafa neexoon rëboon riiroon mais bi ñu indee diw sama doomu nday la daw farandoo bi ay coalition la làmb yàqu benn bi benn côté bi muy mbër yi bi ci topp promoteurs yi la promoteurs ñoo ragal xam dañoo amatul xaalis ñu coiffé wu ñoom it def groupe whatsapp nekk benn bu kee bu demee waxaale àddiya war koo tëgg jubawul ak moom ka ca des dootu ko ñeme ndax dañ naan ñoo bokk groupe boobu la làmb yàqu làmb day am kujje kii mënul lii keneen ki def ko ndax li la jig mun na maa bañ a jig li ma jigul mun na laa jig. ñàkk kujje googu ci côté côté promoteur la gën a fësee wala egg na ba ci mbër yi. egg na ci mbër yi ak promoteurs yi ak waa CNG ñi nga xamante ne si ñooñu coiffé parce que chaque jour ma wax ak waa CNG. ci ay teggin ndax man du ma dépassé kenn xaw ma ko mais am naa droit nag di kaas ci li ma bokk li ma ci boole mooy damay jënd licence damay def visite ba dab apt kon bu ma dee jënd licence ci yëf yi laa bokk mbaam gàtt na nag waaye ci jur gi la bokk CNG war nañ buñ dee dagg suñu xaalis di organiser suñu ay làmm ba at mi jeex bu at mi tijjee ñun ñu ñëw leen li ñëw leen euh, adhéré wu pour mën a identifier wane bokk ngeen kon bu waaw kon moo tax nag bu jeexee ñu war ñoo woo justifier ñu suñu alal fu mu aw mais ba lamb sosok léegi boko ko wala nga gis ko wax mako musta am lutax li ji deug nak muñ ci wax te mbeuri yi promoteur bi doon promoteur mbeuri yi tax ki ñuy tuddé ni moonu yilif doon ko wa legi lutax mbeur joxuñ ko cër moy mujjé wax moy ñëk nopi pour lan ta moy bour bi mom ndax moy tax lamb am bu ñëwut lamb du am lan mo tax joxuñu suñ bër nañuy def assist lamb lolo ko yaax da ngay gis amateur yo xamné ne li ñuy wara wax duñ ko wax nga gis mbeurum mbeuri 22 combat ñu bu ko bolé mbeur mu am ñaari combat lamb boo ko joxut li ko yàlla jox mu xañ la li la yàlla li ko yàlla jox da ngay boole mbër yi lamb ñëwal boppam sponsor yi ñëw ñëpp ñoom microcentrale yi surtout ñoo dàq sponsor yi parce que luy naaw ku ko sànni ko yabal lamb ci coow lay tijjee ci coow lay tëjee coowee ndayam coowee baayam nga bëgg taxaw jël sa micro naan bàyyi leen violence bi bàyyi leen coow li sponsor yi dañuy daw dañ koy jël ndigalu ni daal di pëccet daw. mais lamb mën na am te violence du ci am. làmb ju am coow lu garaaw mosukoo koo gis coow wi garaaw te duñ ko ragal dañ ragal koo wax biir ensemble la ne fa la ñuy toog jiite ndaw réew mi xeex nga teg sa bët duggal ci net bi gis ko mbaa ma wax la ña doon xeex ñeme naa ko ragaluma loolu ci politique bi la nit ñi di dee ci football bi la nit ñi di dee làmb loolu amagu fi lan moo tax ñongaluñ làmb te muy suñ aada ak suñ cosaan liñ jéggaani ñun ñu gën ñu ko ñu gën koo naw football dañ koo naw jéggi koo jéggaani te buñ xoolee histoire football ñun waruñ waruñu sax ñun voilà léegi nag ñu gën a naw football gën a naw basket gën a naw leneen ba kan naka làmb te bu làmb ji yàqoo maanaam agression yu bëri ndax bëri na ci mbër yu nekk ci koñ agresseur la ñu woon baa ñuy def kat seen waa koñ ñi leen champion nga ñu bàyyi loolu éduqué waa la xale ya fa ne kon bu ñu yàq làmb nañ ko ñogal tey toog di waxtaan ndax ànd bu nekk ñàkk waxtaan na koy yàq ndax li ngay jàpp ak li may jàpp ak li kee di jàpp day wute mais bu ñu yàqee ndab yëpp taaj ko rek kenn ku ci nekk jël ci li lay jariñ am na solo kon su ma la déggee euh, le fait que ñu jël ku ci mel Mouhamed Ndao Tyson ak Yékini daal leen di introduire ci nga xam te ñoo ñooy les membres du CNG kon loolu réglewul problème bi. déedéet Tyson ak Yaxya Joob Yékini kese réglé wuñ problème bi ndax ñoom bañ na ko ba bëreetuñ ñoom bëreetuñ de def nañ fi nag lu ñu naan leen gàcce ngaalaama mais bëreetuñ beneen bi mooy euh, dama bëgg ñu xam ni dëgg rek ay dëgg la ci ginnaaw dëgg ay caaxaan la. li may wax man waxuma ko pour en personne pour man waxuma ko pour Tyson waxuma ko pour Yékini waxuma ko pour Moustapha Gueye waxuma ko pour kenn dama ko wax pour axlu làmb nañuy toog di waxtaan li ñu laaj ñi nañ ko joxe buñ ko joxee ba pare ñu organiser ñu lan ñu lan ñu yilifee bu jeexee nan ñu wax nii lañ ko organiser ak nii ak nii ak nii lii moo ci dugg lii moo ci génn lii moo xew lii moo xew mais loi dong lañ ñuy indil ak sañ-sañu lii ngeen di def mbaa li fekk leen ci te duñ ñu laaj suñu xalaat pour lan. pour lan te boo aptul doo bëre benn boo boo boo tardé ñu dagg la leneen ak leneen am mais kon bu dara xewee nañ la wax ni la lii ak lii ak lii ak lii ak lii na xew moo xewee nii ak nii ak nii mag ñi ngànk làmb nañ bàyyi tànn sa bu la neex promoteurs yi fi dee yëpp indiaale seen mbëra leen rey ndax da ngay gis benn booy boo indaale ñu kereel ko coow boo ko booleeg Bébé Saloum exemple laay wax quoi wala ñu boo ko booleeg benn Papa Sow pour lan li fi Papa def li fi Bébé Saloum def ñoom ñaar ñooy mbeur da ngay xol marais yi nga boole leen mais doo xol tànn sa bu la neex bi day yàq lamb loolu day yàq lamb parce que am na ci ñoo xam ne yaa ngi leen di woo boo woo ci sponsor bi du la jël xamul tax du la jël xamut ña ngay wax àdduna ko ne bébé saalum xam na ko léegi nag nga nga booleeg benn booy boo xam dañ naan man sama supporter sax mu ne leen diw laa ñu ne ma koy kooku loolu nag mooy yàq lamb quoi waaw solo léegi ñu tëj parenthèse boobu rek yaakaar naa ni wax ji am na solo léegi bébé Saloum bi muy dugg ci làmb ban objectif nga fixé woon doon roi des arènes laa fixé woon teral kulluhum te yaakaar ma laa fixé woon rawatina su may mbokki bopp laa fixé woon te dajjiwuma ko fa ma ko daajoon ba léegi. dajjiwoo ko fa nga ko daajoon mais gis na ni yoon bi xaw na yéex tolof tolof yu bari trop. waaw mbaam mu yéex te sëf moo gën mbaam mu gaaw te du dara la sëf. nee naa la dama bëgg nga may tojal bu bu tojul du am njëriñ. waaw junj dafa doy borom xel wax du leer daf da ko moom xam nga suul ker du ko teree feeñ. te laabu géej ma ci doy ndax fépp tooy. xam nga ñi ñuy déglu day baax ñu éclaire la lanterne parce que seen wolof soriwul comme man. ñi ma gën a dégg wolof dong nga nekk ci àdduna bi ndax man li may wax damaa judd fekk ko fi ñu ñu nàmpatal ma ci as tuut te looloo ngi fi mais dama bëgg léeg dama bëgg jaam ñi di xaw a bàyyi wolof ki bi fi ne man du ma du ma làkk leneen lu dul wolof. du ma wax nasaraan du ma wax allemand du ma wax leneen tax xaw naa ci am yu ma ci xaw a tuuti rek mun ko wax mais du ma ko wax wolof moo tax ay wolof rek laay wax. di ko tàkk di ko tikki ni di ko ni koo ci ta benn kàcc du ci rax dëgg rek laay wax ndax yàlla moo ne xulun ak walaw kaana mu ran pour revenir ci question bi nga tontu ma tontu boo am ten dina leer ci nopp amateur yi da nga fixé woon nekk roi des arènes ñu gis ñu yoon bi benn moment bëri na tolof tolof lan mooy expliquer moment yoo xam tolof tolof yu bëri woon na trop. waaw explication yomb na yombul li tax mu yomb dafa am ñoo xam ni jaam ñi noonu lañ leen man aw non, noonu ay non comprendre laa am xam nga kan mooy suma non soxla bi nek sama kanam mu bëgg kokoi faj sama non te dama jog affronter ko mais ki wax ci man lim xam ak lim xamut no comprendre lay doxé sama carrière yalla ma opté pour mu Nyari beur ñaari sama ñaari métier ngeen man yo xam tay bu ya yàqoon ma defiko mais lamb yalla ma ci wo te ma ngi ci ba léegi patuma ma ma newuma comme ñom kon ba tay la ma gëm dana gëm nan dina ne liñ tuddé tolof tolof nak tuddé mako tolof tolof nak nattu ak wursak yakub yalla la jam bu ko neex la koy sot sa te tuuma alalu gor la nattu alalu jullit la ci bu ko nangoo waaw. ma taxaw tuuti ci benn combat boo te ni coow li bëri woon na ci trop mu attiré attention yu bëri ci ci arène bi sa diggante ak Ama Baldé euh, yéen ñaar ñëpp ngeen def début bu am solo nekk ci benn lancer de victoire ñu doon xool combat bu explosif bu metti ngeen ñëw xeex bëri mais combat bi a yomb trop Bébé Saloum da doon sóoraale Ama Baldé de trop wala jour boobu nekkoo woon. waaw euh, bëy bu feebar de uute ma du ca ndax lu mu ca wax ñu ne der baa tax comme daanu naa lu ma ca wax du neex a gëm naa gëm ni daanu naa rek. mais bis boobu la moo tax xeexoo bëriwoo. li tax xeexu ma bëriwoo mooy li nga gis yow rek soo ko mënee justifier yow nga justifier waaye man maa ne maa nekk uude bi te ci daru bëy bu feebar bi nga may lu ma ci wax ñu ne dama kaa yittewoo. mais yaay le principal concerné yow mi doon bëree war nga xam ni man nekk naa wala nekkuma ndax sa diggante ak Garga am nga noo ñëwee ak sa yeneen combat jour boobu nga ñëw daal di passé à côté. waa xam nga gars yi ñoom dofuñ dina jàpp lañ li nga indi ñoom dañuy xam ni indi nga lii bu manqué dañu xam ne manqué nga lii xam nga tey bu ma taxawee wax ci victoire jàmbur lenn day ñaaw quoi ndax bëgguma ko daan nit ñu wax ci man dara quoi damay gëm ni defete ñëwoon jour boobu ñëw na rek ñëw na waaw. ñu seetlu aussi ne yow bi nga jógee ci combat boobu sa diggante ak Ama Balde tolof tolof aussi bëri na comme li ma wax parce que avant da nga doon tegale ay trois victoires mais bébé da doon am problème sax pour tegale trois victoires de suite dépp bi nga bëri ak Ama Balde ba léegi mu naan saison yu diggu doom ngay def. waaw loolu tamit la rek ah. parce que damay ni nit ñee ko euh, xoolee noonu rek waaye man gisee wu ma ko noonu man ni ma ko gisee mooy lu jot rek yomb te maa ngi ci quoi ni ma ci nekkee mooy ñi may daan maa ngi leen war a daan di leen daan ñi nga xam ne ñoo ma daan man su ma juumul ñaari yoon laa mos a tegle defet musuma tegle ñaari defet bu dul ñaari yoon bu dul benn yoon laa mos a tegle ñaari defet mais bu dul loolu noonu musuma tegle ñaari defet kon loolu du tolof tolof te dañuy fàtte ni toog naa fi trois ans yu ma bëreewut nag loolu dañ koy dañ ko génne ci dañ ko ngay boole ci carrière bi te da cee génn loolu bokku ci waaw ba ma dalee bëri ba léegi année ren dong laay ko a def année blanche te promoteur yi amul xaalis. alors ñu seetlu nii def nga trois ans toog nga ko daal di année blanche su ma juumul 2014 2015 ak 2016 lan moo expliqué loolu. waa loolu waa CNG ñoo xëy bis li ma dema def opération hernie man leen duma ko def comme ñoo ma yilif te aw ma mag ñu ma kaasle mbër yu mag yi fi nekk ñu ñu ko tuddee seen bopp leen ñor ndax nag kuñ ci dagg sa xaalis mbaa ñu wax la dara boo xëyee takk micro yi. waaye lu dal sa mbokk doo ko jooyle looloo waraloon ñu wax bi ñu waxee man leen du ma ko def toog diiran bu gàtt ñetti at gars yi ne ko soril mais soriwul ah ñu ŋànk làmb ñenn ci ay nit ñu baax woo suma jigéen ni ko dafa am dañoo am ci moom yaakaaru làmb te heure nii garaawul lu ndaw la nekku na ko dindi te dégg nañ yaa moom am ngeen amitié bu tolloog boo ko wax ni ma naar man ko naam mu ni ma demal nga def ko lu la ci nar a def ci nar a dal yàlla na ma dal ma dem def ko réussir ñëw teg la ci ñaari victoire ay secondes ndax Gambien laa fi daan 14 secondes Birahim 2 18 secondes. am na solo léegi bi nga daanee Gambien daan Birahim de nga mujjee bëri ak Jëtli boobu ba léegi nga am problème d'adversaire. waaw Jëtli laa mujjee bëreel am problème adversaire ndax gars yi dofuñ ba excès salaam pour lire ko dañ koy xam dañuy teggi mbëri ay tapet lañ tapet bi tudd tapet mbëree mbëree tax ñu tuddee leen mbër lañ récupéré tapet di wax tapet tapet moom ci mbëri la wàññee ko. yaa ngi tooñ yaa ngi défier. li ma lay wax dama ko xam parce que tey munoo gis nga euh, Sa Thiès Bébé Saloum Papa Sow malik ñaa Malick Niang ah buñ bëriwut ci seen biir dañoo tàppetante waaye làmb jaa ngi noonu ñoo fi tollu ay permanence ñoo fi ñuroo mbir waaye lu ko mooy kon dina wàcc may sama rakk sens te arrangé wu ma mbaa papa waaye wàcc may rakkam sens te arrangé wu ko ñun ñooñu nag buñ daanante yokk luur xam nga ñu ngi naan luur ci kaw dañoo manqué dañoo manqué ñun ñoo ko rafleel ñun ñi wara compétir dem suñu yoon teggante bi lañuy ba ki nekk buñ la woyé pour mbeur nga bëre xam ne kii sa adversaire lañ parce que mënuma bëre 22 combat ben mbeur buma bañ dang maa ragal toog ci sama 17 victoire mbeur buma bañ dang maa ragal dama leena a dàq ëpp leen doolé ëpp leen tay ëpp leen fit ku ci wax lan nga doon wax staff bu baax mais biñ xamé ni mi ngi samay loxo fim toll ni lañ ma ragal bu njëkk koo ni bébé mu jël ko na daan xaar ma soqeeku ci pour dem. mun nañ jàpp ni jamono ji bébé mi ngi ci ay loxo yu wóor. kañ laa gëj a bëre du daaw daaw ren bëreewu ma kan moom kan ci lan nga ma dégg lu ñu ñàkk fayda doo ma ci dégg maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi entraîné nekk ci lu ba ci xel mu dal nag xel mu dal lu leer laa lay wax nii ma bëri yàlla ak may teral ma ñàkk bëri sëñ sëñ Tuubaa ngi sama wet lamb ji ma ci dara gudi-gudi jël li ma moom sarax ndongo mbamu tibak dolem li léegi ma taxaw ci benen combat muy sa diggante ak rek ñu dégg la nga defoon benn sorti ni da nga ko jël ngir nekkoon ci ay situation ay jafe-jafe nga def ci ay révélation yu daw yaram. waaw su ma digganteeg rek rek ndeysaan su ma wax bo motul légui sax émission bi yàqu mais baal ma ak seigne touba rek mun ci wax ndax sama yaay day ci man kenn ku kenn mënu la doon. bu ngeen seetloo léeg damay wax a wax ba gi jàll di ci concentré mais boo duggee sama yaay rek déséquilibré ma ndax nag day ci man kenn koo xam ni mënumaa gis remplaçant am ci àdduna ah mu tawat Reug Reug traversé ma boobu suma poche vide na te miinu ma ñaan yi damay gor ndax ku la may tey bu subaa mu tooge la mbaam waxtaanee la ko du ñu xam ne ñëpp a bëgg a mat litre mais walaat mënut a ñàkk def te yàlla tax déedéet gars yi mënuñoo jënd ordonnance mais mën nañoo jënd nagu dëj te du xaar sama yaay ci ku ko jëndal nagu dëj Reug Reug traversé ma làmb boole wuñu ndax li ma fi def defu ko mais mënu ma koo ñàkk jël ndax moom rek lañ ma wayal ci samay nopp te bëgg naa aw ko ngir te dem dem dem faji sama yaay ma jël avance ba faj ko ci ba sonn yàlla weddi mu demee na mu demee différence suma sama diggante bi sama yaay gaañoog bi rek bi ma bëri jég rek rek vingt et un jours la loolu nit mënu ci am concentration même boo bañee sa yaay waxuma la lii moo war a suma combat rek du ma ci débat du defet ci man contrat bu ma signé sama nawle la war koo remplir dem def ko mais boolewuma ko ci samay defet dinaay lim nag ni diw daan na ma waaye wallaay du defet bu ma naqari ndax naqar mënatu la ñëw ci man ci àdduna ndax ñetti ndam dama koo am ndam li njëkk. mooy kër gi sama yaay juddoo ay magam juddoo fa jamono di dox bañ koy jaay ma jëndal ko sama yaay def ci turam mooy sama ndam naqar ta gën a rëy ma nekk Paris ñu woo ma ni ma sa yaay gaañu na mun munta gën a rëy ma taaloo jigéen tuddee ko sama yaay lan moo may safati lu dul liggéeyal Serigne Touba safu ma lu dul liggéeyal Serigne Touba rek saf ma sama soxna si sax sama wéttal mais bëgguma ko Serigne Touba rek laa bëgg am na solo damay desandi ci moment yooyu rek parce que am na benn terme aussi boo ci waxoon mu doon terme bu garaaw ba ñu bëri sax dañ naan bébé li mu wax nii des na leer ci nopp yenn amateurs yi ngeen da nga di jàmbalu fàkk tëgg te sa gémmiñ ak wàllu mënu koo dëpp feneen fudul sa doole loolu mooy waa jàmbaari fàkk tëdd boo ko mooy bañkat te sama gémmiñu wàllu du ma ko dëpp kenn ndax kooku dëpp mu awul la ko bu génnee teg ko ci penc mi ñuy déglu CD bi te duñ ko faj loolu tax man la sama gémmiñu wàllu mënu ma ko dëpp kenn awul ko sama bopp mooy gënal loolu waral avance ma jël ko jàmbaari fàkk tëdd mooy jàmbaar ku dul jooy ku dul onk li coow lii bëri bëri bari bari bari est ce que xam nga ne mbëri maa ci gën a métti carrière gën cee rafet carrière ndax damay dundee taw tawhid man gëm-gëm laay dundee. attends bébé est ce nekkul dafa nekk nii di tagg boppam. xam sa bopp gën ñu woo wax la ko xam sa bopp moo gën ñu woo la wax la ko tagguma sama bopp li nekk ci man laay wax vanté wu ma it ndax loo am lu bëy bi lekk bay cëb cëb mi ngi ni deng ci nag mu ne nemm ak moom. lu may jaay ren it ëppale na ma ko ndax sama néeg bi li muy rëy rëy am na lu ñu ma fa dénk loo xam ne moom moo ko borom ñëwee dama koy génn jox. léegi nan nga gënee rafet carrière say morom. waaw ndax nag sam ñi ne samay morom lañ dañoo am jàppale am nday am baayu làmb te man aw ma nday aw ma baayu làmb aw ma bàjjanu làmb aw ma umpaañu làmb man seul contre ñëpp ci làmb li ñuy wax ci man ci débat sax bëriwut lu sama booy yu ndaw yi may àndal man aw nijaayu làmb aw ma baayu làmb mais gis nga. loolu ma ko mu muñee tey bu ma nekkoon ci benn écurie yiñ tuddee écurie yu mag yi ci ndakaaru fii ma tere làmb ji gaa yi ñu leen génn leen te duñ ci teg baat dañuy génn ñibbi wax laa la wax de te li ma lay wax yaa ma ko gën a xam. wax jooju bébé ci mën bëree la ko teg ci am doole wala ci am ginnaaw. àdduna ñett ñi dàq bëree ci laa bokk damaa xamul maay P bi damaa xamul maay 2 bi damaa xamul maay 3 bi waaye ñett ñi génn ko. ma profité dugal foofu benn question rek boo am teen tey ñu bëri bëri na ay polémique mooy kan moo dàq bëree ci làmb ji. man da duma ne man la waye ci ñett premier yi la bok so ne man la rek manam moy, manam xamo mais ci ñetti premier yi dal la bok man. bu wesso yow ñi nga gis ñi bëree ci anane bi kan mo ci dakk bëre. ñepp mën nañ bëre ay champion lañ ñepp ay ndaanaan lañ parce que nak aduna ko ci xébal la ko Sungin jox su ngeen xulo ya ko togn ñu déggon la ay jamono aussi ngeen demoon nga fi Allemagne def sport euh, ñu bëgg xam ban genre discipline nga fa doon pratiquer. waaw MMA la doon pratiquer foofu. day sport bu yeex nekk sport bu bari njariñ nekk dafa bari risque tamit maa ngi gis léeg-léeg yenn mbër yi ñu ngi ciy dugg waaye jaaruñ ci yoon wi te dafa am yoon man nag ci yoon wi laa nekk bu ma egsee rek jaam ñi gis ma maa ngi ñaan Sénégal di ma ñaanal rek yàlla baax na bis dina jot ñu gis ma te buñ ma gisee da nga xam ne maa ngi woon ci yoon wi. pour revenir ci risque yi rek MMA benn yenn genre risque ñoo ci nekk. daa bëri mais boo ko waxee tàppale duñ ñëw daa noppi rek. dama bëgg ñenn ñi nga xam dañ ma rëcc ci làmb ji ma xaar leen foofu noonu bu leen ko wax daa bëri risque mais boo ci waxee ñaar tàppet yi bàyyi duñ jëm te bëri bëri gis naa la léegi ñu ngi ciy bëgg a dugg te daf may kontaan ci loolu damay bëgg ñu fekk ma ci kaw tapi ba mais lu tax nga gis ni gis na bëri na ay risque trop nga daan nangu daal ciy dugg waaw man dama ni la jàmbaar fàkk tëdd laa kon daw ma risque rien risque naa risque tubaab bee ko wax boo ñemewu risque doo am dara man benn risque laa ñemewul muy sàcc ak fenn ñaar yooyu daal ñemewu ko moom nga bi nga demee Allemagne Allemagne également pour moi Allemagne yi gis la am lu ñu gis yow waxtaan ak yow pour nga toog foofu pratiquer benn sport euh, contrat moo laloon sa diggante ak ñoom wala nan la demee. dama am combat fii dem di na ji am luy nelaw ci man sama waa dëkk sama waa réew sama waa gox xamuñu ko ñoom ñi nga xam ne ay nit ñu xonq lañ yàlla may leen matière boobu ñu xam ko ni ci duut seen baaraam ma ne wadet taxaw ci seetu bi seen sam bop ñu ne mën nañ ko ci def man leen d'accord na waye mën na ko ci defal sam bop xaar leen ma dem ta ñew nan la démé na bëgg nga raconté ma bi nga démé moment yi ngay pratiquer sport bop ba ñom ni ni la superviser ba xamni yow dara mi ngi ci yow war na travail ak yow wa seen club bi la bokal ant fu ñuy entraîner ñom la antal euh, fitisti bu ñuy entraîner ñom nek ñi ngi may observer te man bayuma leen xel ñi ngi may xol te bayuma leen xel ba ben jour ñu proposer ma lolu bi may video ji vidéo yeeg lépp ngeen man après dinaa la ko envoyé pour bo ci bëggee def discours wala nga bëgg cee dugal wala nga bëgg a wax di nga xam li ngay wax ma dem ma ànd ak suma mag bu jigéen bi mu dem mu waxtaan ak ñoom ñu xamal ma ni ma dañ la bëgg a jël def la suñu tête de filu MMA en Allemagne jox la nationalité Allemagne nga indi say sa njaboot sa jabar ak say doom fi lolo bok ci lolo loolu non la demee ci nuñ mën a tënk ñoom ñoo ma bardeel ndax xam nañ li nekk ci man quoi actuellement yaa ngi nationalité allemand. man daal maa ngi ci allemand yi. dama bëgg mu leer bër actuellement ya, yor nga nationalité allemand wala yoroo ko. maa ngi ci allemand ya yi daal en tout cas. maa ngi ci allemand yi ya daal loolu daal laa mun a wax parce que gars yi ku ñëpp xam foo jëm doo yegg la ñuy wax waaye man ragaluma loolu ndax nag fi ma taxaw nii nii nii nii nii ku taxaw sama kanam amoo sens dama lay fel jàll xamul tax entreprise la te bëgguma mu tëj bu tëjee ñu bëri dañuy sëngeem. Ah, mais lamb toll na foo am teen sa benn morom bugul ñàkk bis ndax loolu dina yomb. mbër mu ma ci jël mbër mu ma ci jël ma duma la daan la bu ci munti doon nag samay morom buñ ma jëlul samay mag mënuñ maa may sens bàyyi naa làmbi Sénégal samay morom may jël ma bëre mbaa samay mag may ma sens mbaa ma bàyyi ndax nag boo yi fi yi fi am coow yëpp mën lañ ko jox ma daan newu ma fi nag pour kenn di créer ay mbooyam di ma leen jox rek nag déedéet Serigne Touba dencal na ma lu gën loolu alu ahlu làmb daf la soxla feeling bi ak caaj bi. waaw ndax dafa am yu ma waxoon ca ba may démarrer ca ba léegi ci laay dox dañ maa laaj ci sa àdduna ñan nga ciy roy am na ci xeetu mbër yoo xam ne ku ci ne am na lu ma comp ci yow ma lan man leen mën a bëre Tapha Gueye fu lay yëkki nii dooley bombardier ak feelingu Tyson. mbër yooyu comme daje ci yow moom ndax di nga neex a jëflante. loolu man nag moo tax borom dogal gars di ma namm soxla ma ci est li ngay waxee nii du tax gars yi gën a moytu avance bi. lu mu gën a yàgg gën a ci ñoom. kon daal yaa ngi leen di waajal lu metti làmb suñ luy baax la amul ruq bu sedd dara yomb te làmb moom du ëmb day jekk rek aussi saa su nekk saa yoo géntee tànt boo gis xamal li maay waajal sama làmb ku ma ci jël amoo sens. dam dem menacé wu ma leen waxuma leen dara mais dofuñu liir nañ li ma indi xam nañ ni kii musul indi lii té luma gëna ñëw mu gëna metti amatuma luma ci bañ bañ kat bu and ak mbër mi ñëw la sama mag ja waxon waxoon sen seen kat bu and ak mbër mi mo ñëw bu njëkk bërikat bi rek doon ñëw def spectacle ñu la ilaha illallah mbër feñ na way légui lu la bu jar dama koy def non lak de sax day tolal yëf yi té lak dafay nekk di buuxante rek nañ mako jox mbër yaangi togn tooñ de nañ mako jox lat fi lay ne di buuxante rek nañ mako jox pënseur di walu ngay waxal pënseur dooru ko fi kenn kan la fi la dëgër dooru moo freiné surtout Cheikh Ibrahim Ndumbaan bi. moo daan Mansour Diop 2 Alma moo daan Mansour Diop 2 adversaire la boole. te lam daj ci Mansour Diop 2 daju moo ko faat yóbbu ko top 5 te moom mënu ko woon yóbbu. nee moo freiné Boña Birk Demba Ndiaye. nam daanee Boña man moo ko daanee woon Boña gedd victoire ba. yaa ngi tooñ lag de. tooñu ma ko dañoo war a bëre man ak moom. baax na yaakaar naa mi ngi seetaan te dina ko dégg. ah noonu la dem